damay wax toujours le nit buy def dara war na wax nit ñi li muy def lu tax mu def ko man sama carrière politique li tax may def politique dama ne ñetti mbir la mbir bi ci njëkk mooy amal njëriñ sama génération sama génération mooy ñi ma bokkal jamono ñaareel bi amal njëriñ sama askan sama askan mooy fi ma fekk baax juddoo fa ñetteel bi mooy amal njëriñ sama réew réew mi ma moom ma dëkk fa muy Sénégal mu gënal ma réew yëpp ñett yooyu moo tax ma dugg ci politique dama def candidat pour delloo njukkal suuf si nga xamante ni fi laa juddoo mooy suufu ñaan fii la sama maam juddoo fii la samay baay juddoo pour delloo leen njukkal delloo njukkal suuf si nga xamante ni lu ma mel moom la lu ma am moom la def candidat aussi pour delloo njukkal communauté yi nga xamante ni ñoo fi nekk muy xeet yi fi nekk muy xeetu wolof di xeetu pulaar di xeetu soose ak xeelu xeetu pël Fuuta ñoo nekk ci réew mi ñeenti xeet yooyu pour delloo leen njukkal moo tax ma def candidat bi dafa am benn réforme majeure benn loi bu njiitu réew mi ak gouvernement bi taxawal muy territorialisation des politiques publiques mooy ne politique ba ñuy def ca kaw di tabax réew mi léegi dañ koy wàccee ba ci suuf parce que jàpp nañ ne réew pour mu jëm ca kanam il faut gox goxaat yi ne ci suuf am yokkute am sañ-sañ am doole mën a jàppale nit ñi ñu mën a am liggéey mën a jàppale nit ñi ñu am wér mën a jàppale nit ñi ñu am ndox maanaam mu mel ni kon émergence bi ñuy wax yokkati bi ñuy wax il faudrait que ñu commencé ko yëkkati ci suuf mu jëm ca kaw mënuma jóg dem di laaj baatu département bi fekk baatu commune bi laajuma ko mënuma jóg suba di soxla dara ca kaw bu ma ko soxlaa ne waa Jurbel jox leen ma ndam waa dakaar votel leen ma waa Fatick votel leen ma waa Fatick dañuy taxaw seetlu ne waa Ablaye yow yaa ngi wax ñu fal la mais est-ce que waa Koutiéba fal nañ la. neen toog waxtaan danaa woo candidat yi tëju ak ñoom benn bésu lëmm ma tëju ak yéen balaa ma koy def ku ci nekk danaa la woo waxtaan ak yow bu ñu bajee ñu dajaloo la ñuy tënk ñu génnee ko ma yóbbu ko ci biir conseil rural bi fexe xeex yéeg ca kaw indi li nga xamante ni moom la ñu war a indi donc yaakaar yaakaar naa loolu leer na ma jukki tuuti ci biir programme bi programme bi ñu am pour liggéey réew bi ma jukki ci tuuti rek point bu njëkk bi sama biir programme dama wax ne bu fekkee yàlla dimbale ma ma nekk maire salaire bi nga xamante ni maire bi daf ma koy fay état bi di ma ko fay liggéeyal maire bi ñu fay ma salaire ma ne salaire boobu def naa ko addiyee mam borom Touba boobu noonu ak nu mu mën a toll ci weer nu mu mën a toll ci at nu mu mën a toll ci ay ñaari at juróomi at ñaanuma yàlla tallal sama loxo di fayeeku salaire mairie fii biir Kouthiaba ñaanuma ko yàlla danaa ko jël ubbi ubbi ko ci banque bu mag a mag a mag a mag waxtaan ak borom banque ba salaire boobu dama koy def fonds de garantie fonds de garantie pour financer activité génératrice de revenu bu jigéen ñi parce que jigéen ñi dañoo am ay jafe-jafe financement bu ngeen xaaree toujours état di leen financer dafay jafe mairie mënul financer de mairie amul xaalisu financer financement gouvernement moo koy def financement xam-xam xalaat pexe moo koy def pexe mi ma njëkk a xalaat bi may bind sama programme dama toog ba digg a guddi ma ne man Ablaye sama électorat sama électorat jigéen yi ñoo ci ëpp bu ma jógee jigéen ñi jóg bu ma toogee ñu toog du ñu yendal du ñu fanaan lan laa leen mën a delloo njukkal ma ne budget bi bi ma ko xoolee budget bi bëriwul ma ne waaw léegi naa tëral pexe pexe bi may tëral mooy naa fexe man ma jël si si li ma moomal sa mbokk muy lu mel ni salaire maire bi ma def ko fond de garante discuter ak benn borom banque bu mag a mag salaire bi dafa jaar salaire bu fay jaar mu téye ko mu nekk fonds de garantie bu may ut leneen yokk ci def benn levée de fonds de deux cent trois cent millions et quelques jëm fii ak cinq ans mën a dem ba un milliard loolu lay ñaan yàlla. loolu bu ñu ko defee am fonds de garantie bu toll noonu mais dama ne magasin de stockage dootul jaaxal nit ñi forage jaaxal nit ñi. dispensaire dootul jaaxal nit ñi liggéey xale yi dootul jaaxal nañ ñi donc loolu boo see ma def ko parce que Kouthiaba laay delloo njukkeel ba ma wax ci sama doreelu wax ay magasin de stockage wax naa ko ci sama biir programme de magasin de stockage parce que magasin de stockage mooy lan mooy tabax bu baax boo xamante ni bu nekkee ci dëkk bu nit ñi béyee ba nawet wàcc ñu dajale dugub bi dajale gerte gi dem dugal ko fa tëj léegi bu ma waree ci biir àll bi dama gis ne dugub bi gerte gi ngooñ mi fan lañ ko denc ñu ngi ko denc ci ay sàkket wala ñu ngi ko jóor ci ginnaaw kër yi safara ñu nag moom ñoo dëkk léeg-léeg mu jàmbu ñu rëcc bu rëccee yàq bu yàqee xiif am bu xiif amee jafe-jafe am donc magasin de stockage yi ñaan neen yàlla dëkk bu mag bu nekk dëkk bu nekk ñu defal la benn magasin de stockage ñu jëm maintenant ci lu mel ni faju parce que balaa nga ne naam danga fay nekk balaa ngay yëngu da nga wér dispensaire ñett moo fi nekk pour le moment benn Koutiaba benn Malemba benn Sil dogu neen ne ñetti ambulance dans les meilleurs délais commencé naa waxtaan ak même partenaire bi yàlla dimbale na ma keroog bi résultat yi génne deux après partenaire bi ñëw na ma toog ak moom fii ñëpp fekke neen ko waxtaan nag ñoom ba ñu ngi waaj a tombé d'accord mën naa wax d'accord neen sax ba ñu war a mën a yëkkati ñetti ambulance jox ma benn bi Sile la jëm benn bi Koutiaba benn bi Malemba parce que dispensaire yi léeg-léeg dafay am ay tànc tànc yu ñuy am lu mel ni par exemple nga dem ci dëkk bu mel ni Baal tundu laay wax tundu war na fa mën a am ay case de santé yu baax parce que case de santé moo lay dimbale jigéenu wérul bi bu commencé am ay jafe-jafe ñu dem ca case ba relais ba fa nekk mën ko jàppale mais nag relais bu ñu formé parce que wér gi yaram duñ ko caaxaanee wér gi yaram du ku nekk rek jóg ne da ngay faj faj danga koy jàng di leen jël ay relais ay relais communautaire yóbbu leen Dakar former leen loolu mairie bi dana ko gàddu former leen ñu xam ne booy faj nit nii lay nii nga war a defee wala nii nga war a defee njàngu nasaraan bi am na la ma ca daan def balaa ma nekk candidat lu bëree bari def naa ko ci école yi lu baree bari mënuma ko lim fii loolu lu may continuer la mairie bi dina taxaw dooleel école primaire dooleel CM xale yi di jàng dinañ leen dooleel jafe-jafe inscription bëgg naa mu dañ fii classe gattax bëgg naa mu dañ fii kalaasu u gattax bëgg naa mu dañ fii bëgg naa nit yi jàng ci sama biir programme am na benn aspect bu am importance maa ko tuddee les chan du savoir les champs du savoir toll boo xamante ni jigéen ñi laa koy jox ak ndaw ñi dëkk bu nekk dana ko am dinañ leen jox jiwu jox leen matériel jox leen intrant ngeen bay bu ngeen bayee ba nawet wàcc la ngeen di am ca tool ba xaalis booba du ngeen ko séddoo xaalis bi da ngeen di ñëw ngeen yóbbu ko école seen doom yi di jàng ngeen jëndal leen fourniture ngeen jënd ay livre jënd ay matériel donc tool yooyu noonu dañ koy wisaare ci biir commune bi dëkk bu nekk dana am tool boobu mel noon te tool boobu noon commencé naa ci waxtaan ak ministre bi nga xamante ni moo agriculture bu ko fi yàlla bàyyee ci gouvernement bii di ñëw danaa continuer ak moom ci loolu bu ko yàlla changé ministre ba di ñëw dana waxtaan ak moom donc programme bu am doole la parce que programme bu maa ci cent millions ci wàllu njàngu diine njàngu diine diine mooy tey mooy suba mooy gannaaw suba moo fi nekk tey moo fi nekkoon démb ak bërki démb moo fi nekk buñ fi jógee mooy waxu yàlla lépp li ñuy def loolu mooy lépp njàngu diine boobu deen ko def dëkk bu mag bu mel ni Kouthiaba jël leen engagement mosquée bi fi nekk ñu koy def commune bi jël na engagement pour àggale ko mu nekk jumaa moderne pour la commune de Kouthiaba Malemba jël leen engagement bu mel noonu yeneen dëkk yi nga xamante ni am na ay jàkk yu ndaw ndawaan dinañ ci taxaw accompagner leen jàkk yooyu pare jàkk bu ci nekk nag am naa yéene def fa benn école arabe bëgg neen ci département bi en tout cas ci arrondissement bi projet bi nga xamante ni moom lañ bëgg a taxawal fii mu wéeru ci baat bi ñu tuddee intercommunalité intercommunalité bëgg naa mu nekk réalité ci biir département Koupantoum mu nekk réalité ci biir arrondissement Koutiaba intercommunalité mooy lan il ñu xam ko balaa ñoo tàccu intercommunalité boo ko déggee ci biir intercommunalité am na baat bu am na baatu commune maanaam bu ñu nee arrondissement Kouthiaba ñeenti commune moo fi nekk commune Kouthiaba Wolof commune Payar commune Altoupaas commune Kouthia Guédi mu nekk ñeent nga dem arrondissement Bamba moo am commune Bamba moo am commune Kayen am commune Ndaam donc ça veut dire communes yooyu noonu nan lañ mën def ba ñu lëkkaloo nan lañ mën def ba boole suñuy projet parce que dañoo néew doole nit boo néewee doole sa morom néew doole sama morom néew doole ngeen bëgg lu am doole il faut ngeen boole seen doole pour ngeen am projet yu mag yu toll noonu intercommunalité moo ko mën a génnee ça veut dire dañuy mutualiser nos forces pour aller vers le cautionnement solidaire pour mettre en place des projets structurants ay projets yu am njëriñ yoo xamante ni nit ñi dañ ci mën a liggéey dañ ci mën a gis seen bopp